الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من فاق الأنام علما وحلما wa ala alihi wa sahbihi al mbokki jullit yi ñi ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi aleyhi salaatu salaam moom mi nga xam ni yàlla nga koy ràngale mu kawe mbindeef yépp ci xam yàlla waaye yàlla nooyal jikkoom mu kawe ci jikko mbindeef yépp ba tax mu mën a ànd ak doomu aadama yépp di ñaanal ay saxaabaam borom bi subhanahu wa taala dolli seen leeru bàmmeel te borom bi itam yokk seen sutur bàmmeel def aljana bi seen dëkkuwaay mu mel ni ñu ngi fas yéene dellu di fàttalante lenn ci suñu diine ndax loolu lañu alquran sant yàlla dane fa zakkir in nafaati zikra sa yadakkaru man yaxsha yàlla dane yonent bi fa zakkir na ma fàttalil jullit ñi fa zakkir na nga leen waar in nafaati zikra ndax yëgal ni waaraateeg fàttale dina jëriñ ki nga xam ni ragal yàlla mi ngi ci xolam <coughs> yàlla waxaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa nabi inna arsalnaaka shaahidan wa mubassiran wa nadiran wa daaciyan ila allahi bi idnihi wa siraajan munira yàlla ne yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam man yàlla maa la yónni nga nekk wootekat ci diine yàlla di waar mbindeef fi wax leen li yàlla bëgg melal leen aljana nu mu mel wax leen safara ñu mu mel ñu mën di xënte topp aljana mën di daw itam safara mi nga xam ne yàlla tëkkoon na ko ay jaam yi mu mere alquran waxaat yonent bi fa zakkir innama anta mudakkirun lasta alayhim bi musaytirin illa man tawalla wa kafar yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi fa zakkir na nga ma fàttalil jullit ñi waar leen ndax yëgal ni yow muhammad innama yàlla ne ko yégal ni innama anta mudakkirun yégal ni dama la yónni ngir nga nekk kuy fàttali nit ñi ak di leen waar di leen delloo ci yàlla yàlla ne lasta alayhim bi musaytir dinañ la wax baat gune waaye doo kuy mbër mbër ko yàlla yónni nga doo mbëru kenn ku dul mbëru yàlla waaye yàlla ne ku mboolem ku nangu baax na ku bañ baax na yàlla nee na ñi nangu maa leen di fay ñi bañ maa leen di duma illa man tawalla wa kafar yàlla ne ku lànk nag teg ko ci weddi fa yu azibuhu llahu azabal akbar yàlla ne maa koy mbugal mbugal gu metti boo xam ni metti waayam ak réyaayam doomu aadama mënu ko nattu yàlla ne summa inna alayna xisaabahum yàlla ne inna alayna iyaabahum summa inna alayna xisaabahum yàlla ne inna alayna iyaabahum wax leen ni ñoom ñëpp bu dund jeexee ba ñu takk leen man la ñuy fekk ci biir bàmmeel waaye summa inna alayna xisaabahum man maay ki yor fay war leen ko fay kon nag dañu ñëw rek pour fàttalante ànd ak mbokk jullit yi nga xam ni ñoo samp télévision bi ngir jotale ci lenn ci diine yàlla yàlla na yàlla fayal ñu leen tey nag ñu nekk ci période woo xam ne ñépp xel yépp a ngi dëgmal sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy période gàmmu gàmmu nekk mooy li ñuy wax douze rabiul awal mooy fukki fan ak ñaar ci weeru rabiul awal rabiul awal nag weer la wu siiw weer la wu ñu xam ci ay mayoom weer la wu ñu xam ci ay dayoom moo tax nee nañu Cheikh Seydil Hadji Malick moo bind ci nuune ya wax ni wa aamun summa saarun summa yowmun ata fihi huda qarnul quruni mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa mi mu judd mbégte la weer wa mu juddu mbégte la bis ba mu juddu mbégte la mu ne at mooma weer woowa bis booba ci la yàlla indi nag ki war jubal maas yi nga xam ni ndëngte dafa nekk ci ñoom seytaane noot leen fas ci seeni bakkan yi buum ba mu dëgër jël ñoxam bës ko ci seen xol yi ba ñu nuur ci géeju lëndëm ba ñu nuur ci géeju bàkkaar ba ñu wëlbatiku janoog seytaane woon yàlla gannaaw mu ne nag yonent booba war a dàq tilim tilim àdduna yooyu moom la yàlla def wéeram di mbégteel atam di mbégteel bisam di li waral nag Seex Sidi El Hadji Malick anhu mu wax qasida bi dafa am benn buur bu ñu tuddee almalik almuzaffar wa xukiya anna almalik almuzaffar kaana yajcalu shahra kulluhu ciidan wa surura wa yattaxizu wa layaalahu diyaafatin wa yattaxizu wa layaala diyaafatin lil awaami wal saadaati benn buur bu ñuy almalik muzaffar di ku ñépp xamoon ci cofeelu sayiduna muhammad buur la boo xam ni su weeru yonent bi mosaana teru mbooleem koo xam ni jullit nga ak foo mën a dëkk daf lay invité day invité am diine yi notable yi nga xam ni dañu yor wàllu àdduna mu invité sang yi nga xam ni ay dereetu sayiduna muhammad lañu sallallahu alayhi wa sallam ñuy ñëw di fekkee mu dindi alalam di ci def def googu mu ciy def rekk dem ba yéem ñépp ci def gi mu mën a def ci juddu dina Muhammad mu ne moom day def weer ba yépp mu nekk feet bis ba yépp mu def ko feet at ma yépp mu def ko mu nekk feet mu ne buur boobu rek nit ñi daan nañu jóge fu ne ci àdduna bi di ñëw di ko seet si daan nañu jóge fu ne ci àdduna ñëw di bokk ak moom guddi googa daan nañ jóge fu ne te moom bu weer bi teroo bis ba weer bi teru ba balaa weer bi jeex bët bu set day togg ay ñam di joxe togg reer joxe togg ndékki joxe mu ne buur boobu nekk wa kaana yartaxilu ilayhi fi l afaaqi al ulama wal asraf mu ne buur boobu nit ñi yartaxilu daan nañu tukki ilayhi di dem ci moom ngir màggal juddu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam min al afaaqi jóge ci ay gox yu wuute gox yu ne am ko fa jóge rek ngir ñëw fekkee ni ñuy màggalee juddu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne daan na fa teew al ulama borom xam yi ku ñëw rek mu yaatal loo xam ci yonent bi nga wax loo xam ci jaar-jaaram nga wax loo xam ci juddoom nga wax loo xam ci jikkoom nga wax wal asraaf sërif yi bokk ak yonent bi daan nañ ñëw toog ñoom itam ñuy wax lépp loo xam ni xam nañ ko ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne buur la boo xam ni boo demee ci téere bi ñu wax taarix ibnul juzi radiallahu anhu nee na mës naa toog ak kilifa gu fekkee almalik muzaffar na muy gàmmuli sayduna muhammad mu ne ma ko malikul muzaffar naka lay gàmmoo mu ne annahu samia min man xadara mawlidahu ay mawlidul malikul muzaffar dégg naa koo xam ni teewoon na ci guddi ga ma ko ma ne ko guddi ga nu mel mu ne ni mu yéemee ci taar mbooloo joxe ñam tabe jàngale fa xam-xam wax fa kan moo yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne annahu ahdara annahu ahdara miatu alfu sahfa min al alwaani al ataima wa salaasina alaafin min tabaqin mamlu'a bil xulwiyaati wa asrata alaafi dujaajaati almaswiya mu ne li gën a yéeme mooy ñun ñi fa gis nañu ni ki woote bis bi indi na téeméeri junni palaat palaat yoo xam ni façon lekk bu ne ma nga ca mu berneel ko jaamu yàlla yi mu ne gis nañ itam mu indi ñetti téeméeri junni palaat yoo xam ni benn bu ne boisson la def yi ay pom yi banaana yi ay jus pour doomu aadama yi buñ paree ñu jël loola ñu tegandaay ko mu nekk fur wi mu ne gis nañ itam yàlla def mu indi fukki junni fukki yàlla def mu indi fukki junni ganaar yoo xam ni dañ ko togg berneel ko jaam ya fa nekk mu ne loolu nag ci lan la ko amee wa kaana bi niyatihi saadiqa wa bi mahabbati nabi sallallahu alayhi wa sallam yéene gu rafet gu mu amoon ak yitam cofeel gu mu am ci sayyiduna muhammad moo tax mu daan ko def moo tax Sidi Hadji Malick ne kon wa amun at ma yonent bi juddu at ma mbégte la lan mooy waral ni at mi mbégte la mooy at mi yonent bi juddu sallallahu alayhi wa yàlla dafa nattu àdduna bi bekkoor ndox amul suuf si wow koŋŋ ñu tuddee ko amul rama suuf si wow koŋŋ ndox amul doomu aadama yi di xiif jur yi di dee doomu aadama yi amuñ lu ñuy lekk amuñ lu ñuy naan ñuy dugg ci àll bi di xànc ay garab ñii di xooli déeg ca taataani déeg di naan ca ndox ma ñii di xooli ñax ma sax ca déeg ba di fa lekk ñii di lekk ñax ma wow su ko defee at mooma ba Seydina Muhammad waru juddu nekk yàlla daa def at ma at mooma ndox bari lool asamaan ubbeeku at mooma déeg fees dal at mooma ñax bari moo tax ñu tuddee ko rabiul awal ar ci arab mooy tekki ñax ñax bu wert ñax mu verte ci arab mooy tudd yi moom mooy Seydina Muhammad at mu waru dudd suuf si dafa naat verte foo xool sànni sa bët garab ya deewoon dekki déeg ya ñeesoon dundaat fépp foo xool rek ñax nekk fa daal di law daal di verte moo tax arab yi ci arab mooy firi ñax rab yi ñax lay firi bu mooy arrabiul awal lii liy tegte la loolu nekk mooy xalimatu saadiya mi nga xam ni moo nàmpal sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo nettale ni ñun bi ñu nekkee baadiya ci bani saad mu ne xaraj naa yowman li talabil kala'i wa marran naa bi waadin fa akal na alxasiisa walmaa xalmatu saadiya nee na ñoom waa bani saad dañu daan dejale ay xale adduna yëpp di leen jox ay xale ñuy nàmpal ndax bani saad ñoom seen làmmeñ ku ñu waxal yey la yàlla daa def ku ñu discoursal dootoo mën a discours te bu seen kàddu jógee kàddu dootul jug ndax kàddu bu jógee ci ñoom ku ci tegaat day mel ni kuy doog a jàng wax ci seen biir kàddu yàlla nekk ne yonent bi falaa ko tànnal xalimatu saadiya nee na nekk ñun waa bani saad daan nañu yor doomu jàmbur war leen nàmpal suñu ween yi wow koŋ duñ am luñ leen mën a nàmpalee dañuy mujj ñun dañuy dugg ci àll bi xobi garab yi lañu ñuy witt di ko lekk di dem ci déeg bi fa gaynde yeeg bukki yi di naan bu ñu naanee ba dem ñu ñëw naan ca bu saxee ay ñax ñu lekk ca ndax suñu biir mën a dëgër soow mën a am suñu ween ñu nàmpalee ko doomu jàmbur waaye xalimatu saadiya radiallahu anha nee na bi ñu demee ci àll ba man ak jigéenu nàmpalkat yi bi ñu lekkee ci ñax mi ñaxu déeg bi ñu naan ci ndox mi ba ñu dugg ci àll bi laa déggi baat buy tudd sama tur baat boobu naan yaa niswatal qabila yaa xayr bnu saadin sayan ila muhammadin masyan li ajli ahmada man turdina hada naalat bi kulli majdin law jaakum muhammadun niltum bi kulli saadin salla alayhi rabbi xalmat saadee ne ma gestu ndeyjoor gisuma kuy wax ak man ma dem càmmooñ gisuma kuy wax ak man ma wër àll ñeenti xibla yépp wër suufu garab yi yërndu ci kaw ban baatee wax ak man mu ne nag ma dégg haatif baatu haatif ci araab mooy baat buy wax te doo gis jëmmam loolu mooy alhaatifu mooy luy wax te doo gis jëmmam moo tax arab yi tuddee téléphone alhaatif haatif lañ ko tuddee mooy kiy wax ak yow dinga dégg baatam waaye doo janoog jëmmam loolu mooy haatif ci arab moom mooy téléphone mu ne baat baa ngi wax ni yaa niswatal qabila yéen jigéenu giiru bani saad yaa xayr ibni saadin yow xalimatu saadiya yow mi gën ci jigéenu bani saad sa'yan ila muhammadin dawal gaaw dem ci muhammad juddu na mi ngi màkkatul mukarram juddu na tey tey tey tey dawal gaaw mi ngi ci màkkatul mukarrama mu ne masyan li ajli ahmada doxal gaaw ndax ëllëgu muhammad yàlla nga koy teg ci sa loxo mu ne man turdina haada yonent la boo xam ne ku ko nàmpal naa la di nga am bi kulli maddin te daa ngi àdduna ak alaxira bani saadu ñu ñàkkoon lañu bani saadu ñu dara amuñ ko woon waaye bi Seydina Muhammad duggee ci bani saadu yàlla yokk seen man man seen alal ubbeeku xalimatu saade bu ñu lim milliardaires yi ci àdduna bi ci la bokk te loolu mi ngi ko amee ci barke nàmpal gi mu nàmpal Seydina Muhammad moo tax nag Sidi Hadji Malick radiyallahu anhu ne kon at ma mbégte la ndax at ma nawet am na te nawet lu ko jiitu amul woon kon at ma mbégte la at ma Seydina Muhammad juddu dafa bëritul ndax lan moo tax at ma dafa wëlbati lu bëri ci àdduna tudd na amul rafami tudd na amul fatxi tudd na amul fiili tudd na rabiul awal si daaji Maalik mi ngi wax ni faxdarat al ardu wal asjaaru qad xamalat fa summiya dalika al aamu aama al fatxi wa mu ne faxdarati nëtëx na al ardu suuf ci at ma yonent bi juddoo wal asjaaru garab yi qad xamalat meññi nañ kon garab yi deewoon nañ qad xamalat meññi nañ garab yépp meñaat nañu déeg yi feesaat nañu tool yi naataat nañu mu ne fa summiyal ama ñu tuddee at mooma amal fatxi atum adduna ubbeeku na ci tëju bi mu tëju woon ci bekkoor war rafami ak atum naataange suuf si verte na jur yaa ngi dund borom tool yaa ngi dund ñépp a ngi am yaakaar kon nekk na amal rafami at moom itam tuddee nañ ko amul fiili lu tax ñu tuddee ko amul fiili ndax at boobu arab yi ñoom xamuñu woon ñey ñoom fas lañu xam giléem ak mbaam abrahatal asram jóge fële jóge ca yaman ñëw ne day toj kaaba yàlla subhanahu wa taala mu ñëw ba ci place bu ñu mu xam mas ci xuri màkka yi la mu kampe fa wàcc fa dal fa ba mu fa dalee nag fekk na abdul mutallib benn sàmmkatam mi ngi jiital ay giléem nee nañu giléem ya juróom-ñett la ñii ne fukk juróom-ñett la waaye lu mu mën a doon ay jimaal la wax Sidi Hadj Malick nee na saa ila jimaaluhu moom day ay gilee la ko laaj kon lim indiwu ko waaye baat bi dañ koo def mu nekk baatu mbooloo kon ay gileem la mën na nekk juróom mën na nekk fukk ak juróom mu ñëw nekk mu daal fay dal mu ne kaaba gi la soxla kaaba googu mu soxla rek abdul mutallib ba mu ñëwee ci moom mu séen nekk hay ak waqaar bi nekk ci moom mu wàcc photo bi ñoom ñaar ñu toog ci suuf mu wax ak moom ne ko góor gi sama jubluwaay day mooy néegu yàlla bi mu ne ko néeg bi nekk am na boroom te yàlla du ma ko xeexal duma ko xulool mingoog yangoog man daa sama giléem yi laa la laaj rek abrahata ne ko ah xatatta nafsaka yaa mawlaaya anil xorami góor gi bett nga ma fogoon naa ni danga may ne wàññeekul bul laal kaaba gi kaaba gii nga xam ni sa maamaati maam ci la àdduna yëpp joxe leen cër ngir teddaange kaaba gi ba tax ñoom ñu tedd mu ne ko loolu day sama yoon nekku ci lawla saalta ximal bayt bihi sarufat abaauka alxurru bayna al urbi wal ajabi kon at moomu tudd na amul fiili ci la abrahata jubloo ca kaaba ga ba mu jubloo ca kaaba ga nag yàlla ne alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiili alam yajal kaydahum fi tadlilin wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi xijaratin min sijil fa jaalahum ka asfin maakul yàlla ne alam tara ndax xamuloo yow muhammad alam tara ndax gisoo yow muhammad kayfa faala naka la def rabbuka sa borom bi ashaabil fiili borom ñëy yi alam yajal ndax man yàlla defuma kayduhum seen pexe yépp fii tadlilin mujj ci sànqute wa arsala yebal naa wa arsala yónni naa alayhim ci ñoom tayran ay picc ababila yay mbooloo picc mu ne ñetti xeer la yor ñaari tànk yi benn beg bi benn te xeer bu ne dañ ci bind turu boroomam picc bu ne day ñëw rek ki soxla lay dóor xeer bi di ko dóor ñii daw ñii rëcc ñii am maradul judri feebar di daanu ay gëngëri ñii dee fa ñii des abrahata daal di daw rëcc kon at moomu tudd na amul fiili at ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam juddoo at ma tudd na rabiul awal ci la àdduna naatee dée gi tàmbalee dox lépp tàmbalee di dem xalimatul sax dee ne bi ma ñibbee ci kër ga nekk ma nettali sama borom kër li ma dégg ci àll bi ndax borom këram mi ngi tuddoon xaaris te ñoom ñaar am nañ doom bu tudd damrata benn doom lañu am bu tudd damra jëkkëram di xaaris jëkkëram ne ko kon nekk fal na ruux ila makka nañu dem ci at nañu dem makka ñu xool kii nga wax ni moom moo juddu tey nga dégg baatam ñu waxal la ko ci kaw asamaan ne la dawal dem màkkatul mukarram xalimatu saadee nee na ba ñu nekkee ci yoon bi di dem mu ne fa ahasani nuaas ay gëmmantu dugguma mu ne ba ma gëmmantu yi duggee may nelaw mu ne ci kaw mbaam mi ñu yéegoon may nelaw fa jaani jaain fa ahadani wa alqaani ala main bayaat mu ne fi may nelawee ma gis benn góor gu sel sol yére yu weex tàll si ba taaru yéemu lool mu jël ma rek sànni ma ci benn géej géej goo xam ni ndox ma moo gën a weex boo boolee soow ak meew bati ko ndox maa ko gën a weex noonu mu ne ma moo gën a neex boo boolee soow ak lem ak suukar jaxase ko moo ko gën a neex nee na nag ci la ñëw nag mu ne ma xalimatu saadiya isri bii naanal xalima nee na ma naan ba màndi mu ne ma waxta si lii sangul xale mu ne ma daal di sangu ba pare su ma daraba yaddeyi ala sadri mu jël loxoom rek biti ko sama dënn xalimatu saax de ne bi ma dóoree ci dënn rek ci laa gis fa isa sadiyaya xat muli allabanaan ma gis sama sama ween yi nga xam ni dañoo laxoon ba koŋ ci gént googu ma ci laa ni bërit yeewu ba ma dóoree loxo rek biti ma ko mu ne ci laa gis sama ween yi wowoon sama ween yi amul woon soow ci laa yeewu gis sama ween yi fees dal ba soow may tuuru ci kaw sereet bi di bac baci mu ne sama jëkkër ne maa ah, xalima am na lu la dugg de sa jëmm ji ni mu taaruwaate sa jëmm ji ni mu rafetaatee sa jëmm ji ni mel ni xalima meloo woon nii mu ne ci laa ko nettali nekk la ma dal ci kaw sereet ba xalimatu saax di nee ne nag ba may génn ñi jigéenu àdduna bi ñi nga xam ni ay nàmpalkat lanu dañuy wër di jël ay doom ñu di leen fay ñuy nàmpal nee na ma teg sama tànk rek biir màkka rek baat ba doon wax man ci àll ba daal di ñëwaat baat badaal di wax ni inna min al aminata al amina muhammada xayru l anaami wa safwatu rahbaani maa in lahu fi nnaasi xayru l xalima al amru ata xaqan min addayaani nee na sa dëgg-dëgg kii di doomu amina di ku ñu wóolu ci jikkoog lépp kooku moy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku xayrul anaami mooy ki gën ci mbindee fii kooku xayrul anaam mooy ki gën ci mbindee fi wa safwatu rahmaani mooy ki yàlla sellal juddoom ak jikkoom deewam ak dekkeem moom seyduna muhammad mu ne ne maa in lahu fi nnaas kooku amul kenn ku ko war a yar ku dul xalimatu saadiya amrun ata ndigal lii nag ñëw na xaqan ci dëgg-dëgg min a dayyaani bawoo min a bawoo ca yàlla subhanahu wa taala mu ne baat baa wax jóge ci yàlla subhanahu wa taala wa salimatun min aybin faaxisin wa naqiyati al aswaabi wal ardaani mu ne boobu la yonent wa salimatun ku mucc la min aybin ci bépp ayib faaxisin ak lépp luy bon bon waaye naqiyatun kuy set la al aswaabi yére wal ardaani ci bépp sobe moo tax seydina muhammad mi ngi juddoo mbubb ensemble la juddoo mbubb ak tubay mbaxanaak lépp juddu rek bank baaraamam xool kaw asamaan naan jalaala rabbin rafiin loolu la Sidi El di wax ni jara nizaaun kabirun fi kafalatihi wa bilxalimati xussa bilqadri wa bilxalimati xussa alqadru fi lqidami Cheikh Sidi El Hadji Malick ne jara kafir mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko war a yor ak kan moo ko war a yor ci ba mu juddoo la ko ko yàlla programme te xalima min baadiya kon nag loolu mooy tegtale ni at mi atum mbégte la weer wi weeru mbégte bisu mbégte mu ne nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa mawliduhu bihi sharafun wa xayrun fa fi taadimi in jaau bisu juddu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sharafun ci la àdduna teddee àdduna ci la teddee wa xayrun mu ne yiw la pour àdduna ak alaaxira Sidi Hadj Malick mi ngi waxaat itam wa bil haadi du ina xayra al qawmi wa bil irsaali sudna kulla diinin wa bil haadi ci barke Seydina Muhammad du ina lañ ñu woowee xayra qawmin xeet bi gën ci xeet yi waaye wa bil irsaali ci yónni bi ko yàlla yónni sudna lañ nekkee sang kulla diinin bépp diine loolu la alquran wax ni kuntum xayru ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bil maaruf wa tanhawna an il munkari yàlla ne yow muhammad yaag sa xeet nekk ngeen yow muhammad yaa gën bépp yonent bu dul yow sa xeet a gën bépp xeet bu dul moom da ngeen di digle lu baax nekk ca tere lu bon di ko soriloo bàyyi doomu aadama itam ñuy nekk ci lu baax di sori lu bon kon nag mbokk yi ñu yëg ni juddu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noon kon nag wa mawliduhu bi sarafun wa xiirun fa fi taadimi nekk na ci màggal juddu sayduna muhammad in jaau sujuuni fajog aajo adduna ak àllaaxira la Sidi Haaji Maalik wax nee na juddu sayduna muhammad ku ko màggal rek sa aajo adduna faju na sa aajo àllaaxira faju na Sidi Haaji tax mu ne ci banu israil dafa am boro xamam bu ñu wax wahab ibnu munabbahin boo demee ci alquran ñii tafsir alquran ku ñu ràññee la ku ñu xam la boo ubbee téere alquran yu bari bokk na ci ñi indi ay waxam mu ne wahab ibnu munabba moo wax ni euh, annahu kaana fi bani israil rajulun asallaha miata amin fa lamma maata naahu ahluhu wattafaqa banu israil ala ilqaa'i fi lmazbala fa awxa allahu ila muusa an salli zalika rajulu wa góor googu dund na ci xeetu yoon ci yàlla muusa la bokkoon waaye moom téeméer at yi musul def lu baax kenn xameewu ko lu baax kenn musul fekkee fu mu def lu baax kenn musul ànd ak moom mu def lu baax lu bon ci àdduna ci lañ ko xame ba keroog ba mu faatoo mbokkam yi daw ni duñ ko suul duñ ko sàng néegam lañ koy bàyyi ba mu yàqu yàlla wax yu Muusa yónni Jibril ne ko eh Jibril demal ma ci Muusa ne ko sa borom nee na nga sàng waa ji sa borom nee na nga sàng waa ji sa borom nee na nga jullee waa ji sa borom nee na yaag say taalibe ngeen gasal ko bàmmeel suul ko te ñaanal ko kon nag fa tabarakallahu ñi ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla defal ñu tawfiq ak taysiir di ñaanal télévision bi lu tàmbalee ki ci bopp bi ba mboolem ñi ci nekk di liggéey yal yàlla teg ci loxoom te kawel ko yal na yàlla yëkkati ko ba àdduna yépp seen ko ba ñépp di ko dégg Ah, ñi ngi nuyu sunu xalif généro yi ci réew mi yëpp di leen ñaanal yàlla di nuyu sëriñ daara yeeg imam yëpp di nuyu sunu baay sunu xalifa baay alxaaji Umar Gay bu Kër Madiagne ñi ngi nuyu mbokki falox yëpp mbokki aynumaan Kër Saala Kër Madiagne xel kom ak li ko yëpp seen mbokkum daara ngeen àndaloon seen mbokkum taalibe Oustaz Omar Diène ci émission bi ñu tuddee ihyaau turaasul ahmadayni ihyaau turaasul ahmadayni mooy dundal ndono gi fi yonent bi bàyyi woon ak Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu kon mbokk yi ñu teg foofu suñu baaraam ba bii di ñëw incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu